bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen tàmmul seen bopp AGT News xibaar yu bari la yéeni kaay yittewoo ci altinab tey ji institution yaa ma ñor Ousmane Sonko yéeni kaay bi ne dafa da ngeen xam kana def lan loola waral Dakar Presse ne wàllum reddition des comptes baleen yeboo xam ne Ousmane Sonko la mu ngànkoon yàbbiwu ko Sonko na lâche pas la yéeni bi wax ci xëtam gu njëkk jëwriñ ju njëkk ci yéeni bi ne ma nga yëkkati yooyele kàddu journée nationale d'investissement bi président Bassirou Diomaye Faye fay ca wet ga moom naan wàllum set ak setal ñépp a ko war a def seen mbiri bopp moom président Diomaye ca bés bi la jour ñu fekk ko fa muy sàkku ci askan wi ñu jël bésub setal booba def ko seen bésu bopp yéenekaay bi ne def na ko it ministre yi ndax am na ci ñoo xam ne ba ci gox-goxaati réew mi lanu leen yabal premier ministre ma bokkoon ca yëf yi yéene kaay bi na lépp loo xam ne xewoon na fi ci weeru juin atum 2023 danañu ko leeral colonel Sankum Faati naan Sonko loola nga xalaat lu baax la waaye bul fàtte ni am ni si jaar na fi fi baleb jomaay bi war a jaar kay source aanaan mooy ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass yéene kaay luy ëpp fanweer 30 directeur exécutif ñoo fa am plus de 80 chef

mooy ñàkkub roppalaan goo xam ne Air Sénégal lañu ci ca a ñàkk lu dul jeex journal bi ne ñaar fukki million yu ñuy perte la leen tardement booba di jural bu jot ca bés bi le jour ministre El Malick di dal ci kaw Air Sénégal gannaaw jafe-jafe yooye ujaaj yi am ngir dem màkkal laas ne ujaaj yooye kay fi ni daa mel ni Air Sénégal ci safara jahannama la leen dugal journal bi ne kenn ca ñoom mën agulaa wax wax kan lay dem jafe-jafe ya foo ko natt weesu na ko Houreye Thiam di bi tardé loola waral ca boobalib yéenekaay voyagiste privé yay yàq Air Sénégal lu mel ni xeme tey sàkku ci état bu Sénégal mu am taxawaay yi fi bëgg a yàgg lool waaye état mooma dawut benn yoon responsabilité ministre des transports aériens El Malick Ndiaye moo ni waxee ci Walf Quotidien booba lépp journal yi yéggee ñu li ujaaji yéq Air Sénégal mi leen fi ne ñu ne yéq bu naqadi te waroon leen yóbbu màkk ña yu toll ca ñeent teg nañu leen ca bët Macky moom xawma ndax dafa nar a seetaan Doro Gueye mi ñu teg loxo direct news a samp woowalew laaj ne homme d'affaires booba ni mu jegee Macky Sall ak njabootam umput kenn yéenekaay bi ne digganteem ak Amadou Sall doomi Macky sàll rawatina waaye mbir mii ko yóbbu ci kanam yoon di mbirum tëgg wëndeel ci wàllu suuf yéenekaay wi laaj ndax Macky da koy seetaan ba ko moom képp mu dem kaso journal bi ne yoon ci boppam sax ndax warta woon njiitu réewum Sénégal ba woon mu indi leeral journal ba ne rawatina ak nag ba Doro ca boppam yëkkatey kàddu ne njiitu réew ma woon daf ko doon doxloo ay mission secrète journal ba ne la direct na waaye li leer mooy Doro Gueye mi nga xam ne daa ñor xomm du nangu moom képp mu daanu ci milép mbir ndax mbiru suuf ñépp xam nañu ne du benn nit a koy lijjanti ay nit ay kilifa sax yéenekaay bi ne boo mayiwul danañu leen tudd ci milép mbir yéenekaay bi ne mbiram mission secrète yi it ku mayiwul foofa lay jaaree leer waxtu a ca l'observateur ware saar naan li leer ba leer mooy di ma jële ci bopp jigéeni parti démocratique sénégalais du kenn ku dul Karim Wade mu dolli ca ne Karim mooma daa imité signature papam Abdoulaye Wade Doudou Wade ca lii quotidien mel ni kuy dëggal kàddu yu ware saar yooye di xam le ni ñaari at a ngi waa démocratique sénégalais di laaj ndax document yi ñu leen di yónnee dëgg-dëgg Abdoulaye Wade koy signé authenticité yooye la document Doudou Wade nee xel da caa lool ndax nee na Abdoulaye Wade fi amatul kàttan gu mu jiitee parti démocratique sénégalais njiitu jëwriñ yi Ousmane Sonko nag Doudou Wade nee daa war a nangu Bassirou Diomaye Faye jiite ko ci mbiram Souleymane Kandé nag moom Doudou Wade ma ngay sàkku ci président de la république ak askan étrangère u réew mi kon mbiram bitim réew Doudou Wade nee na na ko Ousmane Sonko bàyyee njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye moom Sonko ca boobaleb yéenekaay ma nga bi mel ni ku naan ma ngay def kéemtalaayu kàttanam ngir jubbanti calendrier universitaire bi journal ba ne juróom-ñaari dogal la ca jël ci lël bu mu amoon jagleel ko moomale mbir mbiram direction de la solde libération naan woowale waxtu Charles Abdou Ciss waxati ca lu doy waar yéenekaay bi

moo ca amoon ñu des ci mbiram koppar ak libération mi ñu yëgal ne fisc teg na loxo Novartis ci ñeenti milliards ak ñaar téeméer ak fukki millions yu mu war a fay nib impôt yéene bi ne waaye loola a naan làmbatoog jaxase képp lañ nekkee ci bopp réew mi ban leen faleeg léegi professeur Mamadou Diouf may jàngale histoire ca États-Unis ma nga naan ca boobaleb yéene kaay teel na nanu leen may Alioune waxtu woowa ca la tribune muy sàkku ci président Bassirou yee këru tasukaay xibaar yi na desserrer pression fiscale bi ci entreprise de presse ñu fekk ko ci beneen journal di Vox Populi moom Alioune muy sàkku bi la yoon ci président Bassirou Diomaye Faye mu lànk ñu teg ko pression ci république des juges ndax nee na république des juges mooma amut fenn loola tax mu ne bu nangu moom njiitu réew mi kenn dugal ko ci débat yoo xam ne amut benn cëslaay ndax na njiitu réew mi jóge ca bopp conseil supérieur de la magistrature càkkutéef la bu fi yàgg waaye njiitu réew yi fi mën a amal gi rek ndam lu rëy la ndax audace di sañ-sañ gi ñu am ci tëgg waxtaan wu ni mel dana indi coppite ci justice ni koy xooleeg ni muy doxe waaye itam indi coppite ci politique pénale yi mu ne coppite gi gën a a a na ba nuppi moom Wally mi ngi ci système bu bees bi gannaaw audience gu mu sekkoon ak Pape Alé Niang yéene bi ne càkkuteef gëmu yëkkati mooy nañu bàyyi jomaay ak sonko liggéey yéenekaay bi ne aw woy sax la ko mujjee def muy jomaay bàyyi leen ko mu liggéey jikko yu bees Pape Alé bu bees journal ba ne ndax waali mii bees nag day tax waa Pastef fàtte ña doon way démb di Abdou Guité Seck ak Queen Biz fii ak ñuy am tontu li critique moom ma nga mel ni kuy tontu convocation wu taskatu xibaar yi ak yenn kàddu yi ñuy teg ci seen kaw yéenekaay bi jàpp ca loola lépp ne projet àndaloon dañ leen faa yeq lu mel ni xeme ñu bari ña fa jël kàddu yéenekaay bi ne dañ leen laaj ana Amadou Ba ñeneen ña gën a xuus ca yëf ya naan leen ana naka ngeen di tabbeeb candidat ba nuppi wëlbatiku di ko xeex booba jamono ca réew mi quotidien njiital mouvement des entreprises du Sénégal Mbagnick Diop di xàll yoon yu mu jàpp ne bu nu ca jaare danañu xeex ñàkk xëyum ndaw ñi xeex it jafe-jafe yi entreprise yi nekkee Walf Quotidien waxtu woowa a ñàkk char de combat wi oon yu nu gaare ci tëngeej kër njaay loo enquête ñu yëgal booba jamono ne moo jural tiitaange askan wa yéene cabinet équipement militaire yu diis gann yu nations unies di mbootaayu xeet googa ñu taxawal boobaak léegi am na ay weer ca kër njaay dafa jural askan wa njàqare ndax ña xalaat ne mbaadu ay bomb ak yeneen dafa nekk ca conteneur yooya matériel booba jóge mali yéene kaay bi na bolooree ko fa gaare waral Guy Marius Sagna yëkkati ba njiital gouvernement bi nag di Ousmane Sonko bi Mamadou Thior booba jamono yeneen yéenekaay bokk ci Le Quotidien di ñu yëgal ne fanweeri kiloy cocaïne ak ñaar tegati nañu ko loxo ca kër ayib journal ba ne njëkk laa nga toll ci ñaari milliards yu teg ñeenti téeméeri million Le Soleil ak Dakar Presse wàññi xayma ga ne du fanweer ak ñaar fanweeri kiloy cocaïne lañu jàppee ca ayib foofa lañuy taxaw ñun tey ñaanal leen kendal ak jàmm dig dajee ëllëg incha allah News